waaye xanaa ñu commencé ko ci kàddu yu cant bu ñu nee kàddu yu cant mooy ki nga xamante ne àndoon nañ ak moom ay at ñaar fukki at ak ñaar ànd ak moom di liggéey muy maître Abdoulaye Wade liggéey bu rafet ñu sant ko bu baax a baax ci considération bi nga xamante ne amoon na ko suñuy diggante ak moom kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye tey damay sant Serigne Cheikh Thioro sëñ Cheikh sant naa la bu baax waaye dama bëgg nga xam ne ñun dañoo ñëw ngir ànd ak yow dañoo ñëw ngir ñu ànd liggéey dañoo ñëw ngir xam nañu ne Pastef mi ngi def liggéey bu ama am am solo te ñi ci nekk ñëpp ay jàmbaar lañ ñi ngi daj lu ne ñi ngi dégg lu ne ñu taxaw te fi ñu waaye da ngeen xam ne ñun dañoo ñëw ngir teg loxo dañoo ñëw ngir ànd ak yéen dañoo ñëw ngir tamit ngir ñu bokk liggéey poste ñoruñu ndax bu ñu poste ñoroon yaakaar naa ne dem nañ ci Macky Sall bu ñu poste ñoroon yaakaar naa kon du ñu ànd ak yéen ñëwuñu ngir xëccoo ak yéen ñëwuñu tamit ngir di wut lenn du aw parce que bu dee tur am nañ ko ba noppi li ñu li ñu bëgg rek mooy ànd ak yéen liggéey te yàlla tax tey toog nga président Sonko toog ma wax ko loolu sa kanam nga seede ko kon tey ji li ñu bëgg rek mooy yéen ñëpp ngeen xamoon ne ñun ànd bi ñu ànd ak ànd bi ñu ànd ak président Ousmane Sonko demande sociale la ci Sénégal demande sociale la ci diaspora bi demande sociale la ci bépp patriote boo xamante ne lu baax ñor na la bëgg nga lu baax bëgg ngaa liggéey sam réew kon ñun dañuy taxaw ànd ak moom te yàlla rek tax waaye nag ànd nañu ak moom ngir benn condition la ñu àndi ak président Ousmane Sonko benn condition condition bi ñu ànd ak moom mooy lan muy ñu ñu ñu fexe ba 2024 mu jëlee ñu fi Macky Sall te loolu yaakaar naa ne man na ko ndax loolu bu dee aw fit mi ngi fi bu dee doole jee mi ngi fi bu dee xam-xam bee mi ngi fi ndax dañoo war a weesu fu ñuy comploter ci kaw ndoddu sénégalais yi war nañoo weesu foofu ndax tey li ma gën li ma gëm te muy lu wóor muy lu dëgg mooy ñi fi nekk ñëpp kenn lañ xam ne moom rek mooy solution yi ci Sénégal nga xamante ne bu jëlee réew mi dina teg ci réew mi yoon dina teg ci réew mi réew moo xam ne réew mi yoon lay doon te it def na ne weng te dara du la fekk du fi amati sàcc ñu sàcc àll réew mi boo ko rawal ba tax ñuy lewal troisième mandat kon ñun war nañoo jug taxaw ngir loolu ne non lii du am te loolu président ko kese rek kot lañ am ci moom yaakaar parce que moom dong mooy solution bi. kon ñun ñi nga xamante ne ay patriote lañ di woote patriote di woote gëm-gëm ak conviction nañu jaral suñu bakkan gis nga bu ñu nangu bu ñu nangu bu ñu nangu kenn nit ak minorité bu ndaw bëgg jël Ousmane Sonko bëgg koo néewal doole bëgg koo sàkkal pexe duñu ko nangu bu leen jaralee benn na leen xam ne jaral nañu fukk te fu ñu woo ñu wuy leen fa lu mu jar dinañ ko def bu dee bakkan la dinañ ko joxe bu dee aw fit la dinañ ko joxe bu dee lamiñ la dinañ ko joxe bu dee tamit mbooloo la ko joxe kon na président Sonko dalal xelam xam na ñun dina jóg taxaw ànd ak moom ba lim bëgg ci réew mi ñu xeex ak moom ànd ak moom xeexal ko ba mu jot ko parce que tey jii kat réew mi yàqu na ku nekk xam na ne dund bi seer na ku nekk xam na ne maanaam faju gi demewul noonu ku nekk xam na ne ñàng mi baaxul parce que tey jii enseignants yi nga xamante ne ñooy yor ëllëgu réew bi di jàngal suñu doom ñu jël alal ji di ko sàcc di ko yóbbu fu ne te ñoon ñu waral leen a fay jox leen ay indemnité ba nga xamante ne li ñu bëgg muy suñuy ndaw yi ëllëg ñu jàngal leen ba ñu am xam-xam kon ñooñu waruñu leen jël di leen néewal doole di leen bañ a fay ba ñuy gërëf kon na ngeen jàpp ne solution bi président Ousmane Sonko rek la nañu ànd ak moom xeexal sunum réew te xeex sunum réew mooy nga xeexal Ousmane Sonko. ba 2024 ñu fal ko kon ci côté boobu rek loolu laa ci doon di leen wax ne nag ñun moom gëm-gëm ak conviction la ñu àndee te président Sonko loolu la ak moom man Assane Mbacké ak appel 221 ñi ma àndal dañoo jóg am engagement am détermination am gëm-gëm am conviction pour ànd ak président Ousmane Sonko ba 2024 ñu yóbbu ko ci biir palais ba te yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def te am nañu ci yaakaar kon nag na ngeen jàpp ne taxaw nañ nekk ab soldaar taxaw nañ nekk ab bay Faal boo xamante ne dañuy taxaw ci wetam ci wàllu politique ànd ci ak moom ba li mu bëgg mu am ko duñu mayati nag kenn koo xamante ne da ngay jóg di ko waxal loo xamante ne amul di ko attaqué wala nga koy saaga loolu moom duñ ko mayati nit ku mën a doon koo def ak koo mën a doon nag bàyyiwuñu kenn dinañ jóg jaamaarloo ak yow ndax kat dafa jot ñun suñu patrimoine ñu téye suñu bopp Ousmane sunu sunu patrimoine la ñun ñëpp nañu jóg taxaw ànd ak moom défendre ko jàppale ko yàlla rek sax kon kàddu yi man naa bañ a bari waaye dinañ woote waat boo xamante ne dinañ ko def woote bu gën a yaatu boo xamante ne dañ ko ànd ak waa Pastef te adhéré nañu nañ bokk ci biir nekk ay membre jël ci carte yi jaay ànd ak yéen ñu ànd. xeex ànd ak campagne ànd def lépp te yàlla rek tax tey nag bu leen xaar ci man tamit ne man damaa bëgg poste wala dama bëgg dara Sénégal moo ma ñor Sénégal moo ma ñor réew mi moo ma ñor kon tey jii man su may ànd ak nit du ànd ak moom ndax condition wala ay privilège walla yooyu parce que bu doon privilège sa yaakaar naa ne kon wax duñ ko bu doon poste sax yaakaar naa ne wax duñ ko ndax yombul man Mbacké Mbacké seul ñu taxaw propose la ay millions yu bëree bëree bëree bëri ma rejeté ko ndax lan samam réew ma rejeté ko ndax lan bëgg réew mi te tey su ma neexoon ma jër ko dem maanaam ànd ak ñoom waaye sama ngor ma yuma ko te dafa am benn baat boo xamante ne maa ngi ko doon wax te ba tey jii ci baat bu laa nekk du ñu ma mas a gis ma ànd ak président saa la ci politique di ànd naan maa ngi koy jàppale loolu saaga la ci man loolu xas la ci man kon da ngeen jàpp ne yéen fa ngeen nekk foofu laa nekk bi may sant damaa fàtte Serigne Fall mi nga xamante ne sama rakk ju baax la ànd ak man mën naa wax ne bi ñuy formé appel 221 moom dañ ko joxoon cër bu am solo mu ko ciy doxal doxin woo xamante ne wax dëgg yàlla am na solo lool kon sëñ Fallou xel day fàtt waaye maa ngi maa ngi sant ñëpp ku ma tudd nga xamante ne fàtte la rek bàyyi jili sa ngooguma Màkka Thiam ñoom ñëpp ku ci nekk rek sant naa la sëñ a Mbacké docteur Sylla yow moom da bokk ci ma nekk ci man kenn waaye daal da ngeen xamante ne bis na ka tey moom ñi ngi ci président Sonko ànd ak moom tey nag dara àdduna du tax ñu bàyyi ko dina ànd ak moom ba yóbbu ko pale incha allahu rabbi